Euh, te Cheikhul Khadim nag amuñ lu dul moom ndax attaques yi jëm ci yoonu murit dafa bari di jóge fu nekk nag euh, am na ci yoo xam ne day jóge ci euh, biir am yu jóge ci biti yi jóge ci biir nag su ma waxee mooy li ñi ñi mel ni ñu ci bokk te bokkuñ ci ñi mel ni ñu ci bokk te bokkuñ ci te boole ci seen bokk bokk te bokkuñ ci bu ngeen seetloo sëñ bi a radiyallahu anhu nafanaa barakaatu fayda ridwaanihi bayit yooyu mu wax ni addurru wa nafu min arrahmaani laysa min albidaani wa suudaani lortaange ak njariñ ci yàlla lay jóge waaye du ku du jóge ci ku weex du jóge ci ku ñuul bayit woowu ñu bari dañ koy wax waaye sëriñ bi da koo jëfandikoo ca gànnaar jëfandikoo wu doy waar ndax booba ca gànnaar daa am waa ju ñuy wax naaj yi koo xam ne ab naar la naaj yi moomu nag eh, dafa jébbal woon ci sëriñ bi eh, wane ak murit gu wér ndekete yoo la ko tax a jóg musiba la tubaab bi ngemb ko ngemb lu day waar mu yor jaaseem futtiku ba set wicci jóg taxaw temm rek ngir jëmale lor ci ku tedd ki bi mu ñëwee ba jub si ko nag ca la gis ay mbir yu baree bari sëñ bi téye ko wax ak moom gis ngeen sëriñ bi ci yërmande ja lam ko wax mooy demal di jàng sóoratu yaasin saa yu jeexee nga baamuwaat ko ba koy def mu tegal ko ñu day la wax naan addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani loolu suñu baax day ko jàng bari kon bayit boobu su ko déggatee xam leen ni naaj yi moomu sëñ bi moo ko taxoon a jóg moom la ko joxoon ngir mu koy jàng kon nag ñu xam ne kon attaques yi jëm ci Serigne Touba personnellement ak yi jëm ci turaasam muy héritage am euh, bari na lool wax dëgg yàlla euh, surtout jamono ji ñu toll nii muy ay attaque verbale yoo xam te ni xay na ñàkk a mën a dem ci wàllu jëmm mën a laal jëmm moo ko waral waaye suñ ko mënoon nañ ko doon defee ay jamono ba ñuy duma murid yi ba suñ mbàkk bésa bindu bindu bind ab leetar brevet di ko ci leeral li li ñuy def murid yi suñ ko mënoon tey noonu la ñuy def waaye nag li ci metti mooy li tax ma joxe misaal ci naaj yi mooy su ma waxee ñu bari nañ ni waa ji morit la wala waa ji nangam la damay tudd turam directement muñu ma jàmbal jaañ ndax damaa seetlu ni waxuma attaque bu mujj bi mu mujjee def ci porte parole euh, bi suñ bas waaye dama seetlu euh, moom daal dafa mel ni yoonu murit sëfu ko yoonu murit nag bu fekkee daf laa sëfut euh, da nga génn wala la nga waxoon ci sa làmmiñ ni ci laa bokk te bokkoo ci ndax boo ci bokkoon doxee di taalibe yi doxee loola tamit nga am nga droit am na ñoo xam te ne ay murit lañ woon bàyyi ku dem ba yëf fi doyatu la mën ngaa bàyyi am nga droit bàyyi moo gën nga ne ci biir nag fas yéene lépp lu ñaaw lépp loo gis ne lu ñaaw la donte yoonu murid amul lu ñaaw waaye lépp loo for lu ñaaw rek sànni ko yoon wi mën naa ñàkk d'abord damay ñëw ci wàllu titre foncier ak wàllu suuf du ma dem ci fond de suie bi parce que man euh, nekkuma ci loi wala nit ku xam wàllu yooyu waaye fi may waxee rek mooy euh, lan mooy ndey kilifa diine kenn waru koo may suuf lan mooy ndey état warut a may kilifa diine suuf fan la tegu xel comme titre foncé la ñu jox ko Serigne Saliou muy xalif général des Mourides di ko gérer di fa def loo xam te ni euh, créer fa euh, emploi boo xam te ni tey ci histoire Sénégal musta am ci fenn fu foofa. Touba gi tamit di titre foncé ñu jox ko Serigne Touba radiyallahu anhu nafa naa baraka fayda ridwanihi ba si gédé gi ma toog ni di foncé foncier ndindi noonu ay dëkk dëkk boo demee Dakar foo tourné ñu la Serigne diw sàngam ci ak ci yeneen tarixa Serigne diw sàngam moom moom fii. moom ranch bi moom tool yi moom nangam bi te pourtant état ko jox ah ana fuwaar ba ana lañ suuf si yañ daggoon ana kër jàmbur yañ jëloon joxe ko yooyu yëpp da nga ciy wax kon bu boobaa yow mi ci sa bopp fi ñu la jox suuf suuf si ñu la jox lu tax waxoo ci bu boobaa la nga am yoof sa immeuble booba recevoir nga ma fa lu tax waxoo ci te pourtant présenté woo dara lu ab organe de presse rek kon léegi lan moo tax ndey lan mooy ndey kon bu ñu defalee dara ab sëriñ ngeen taxaw commencé di mbel-mbeli ak di coow waxuma dara waaye yenn taalib yi nga xam seen pas-pas dëgërut te xamuñ dëgg-dëgg yéen li leen tax a jóg ndax leen tax a ak li tax a jóg ñooñu bokkut ndax yéen leen tax a jóg dinaa ci ñëw ci kanam yeneen mbir la kon da ngeen da ngay da ngay arrêté Madiambal parce que ñu bari suñ déggee sax nañ dinañ xalaat parce que yow sama xarit nga sama xarit nga loo xóor yu baree bari boo ko musaa def danga may woo ñu waxtaan ci ma conseillé la ni ngay def ba ci bu mujj bi nga mujjee def ci benn xalifa général ba nga ko defee bokk naa ci ñi la proposé nga dem jéggulu ji dem ci suñ baara tuubal ko bokk naa ci ñi la ko proposé nga def fi loo xam ni gaaf la gu rëy goo xam ni histoire du ko effacé mukk njëkk nga ko def ci sëñ Saaliwu Mbàkke radiyallaahu anhu keroog ba nga bindee sa ala in wax ni ci sëñ Saaliwu lu def ci bopp nangam bi ci politique bi yaa ko njëkk a bind yaa njëkk a wax yaa njëkk bind yaa njëkk a wax niki noonu tamit amul koo bàyyiwut ci kilifa diine yi loolu nag du yow dong ñu bëree bari la am na ñu bari ñoo xam te ne leen tax a jóg mooy taxaw fas yéene maanaam lépp loo xam te ni teraanga la ju sëñ Tuubaa war a am wala ak njabootam ñu jàpp ni waruñ koo am lan mooy bu ñuy taarif xasad iñaan muy mooy yàlla gi njëkke mooy yàlla ci kaw suuf muy diggante xaabil ak xaabil bi ñu koy taarif dañuy di ko xamle dañuy wax ni mooy tamanni ziya tamanni zawali naama zawa tamanni zawali niama maanaam nit ki am xéewal nga yéene ci sa xol wala nga bëgg wala ngay dox ci luy tax mu ñàkk loolee loola mooy kiñaan te mooy bakkaar bu njëkk a moyee suñu borom ci kaw suuf moom la yàlla bokk na ci ginnaaw bokkaale bokk na ci bakkaar yi yàlla gën a bañ ndax alxasudu la yasud ku iñaan du du sang mukk du nekkub sang mukk waaye nag dañoo bëgg nga arrêté parce que xam nañ la bu baax a baax wax naa ko sànq depuis 2006 daan nañ jëflante parce que sama article bi ma fi defoon ci OCI bi may nekk conseil euh, al iradaat yi ak al euh, shams ci wàllu OCI bi euh, révélation yi ma doon def ci yàq gi ci amoon ci euh, temps Karim Wade ak wax ja yëpp yaw mii daan naa ci waxtaan ak yow parfois sax daan nga ma jéem a piéger di ma jox ay faux information pour bëgg ma koy révéler waaye man damay gëstuwaat boo ma joxee information pour te dire nii toog naa sa bureau ñuy waxtaan nga ni ma man kat taalibe murid yi ñu ci bari dañuy wax ni franc laa nga waxal ko sa bopp dañuy wax ni franc-maçon laa waaye man euh, barab sàngam laa yaakaar mais barab ba ñi nga wax ne ñoom nga yaakaar attaqué nga leen ay jamono yu ay ci lu bare bare bari fi ne nag yow sax xam nga ne li nga def ëpp na ndax dem nga ba sañ njaboot ñu ngi wax naan PDG gi dañ koy dindi ci yow bàyyi la rek ngay liggéey ci biir organ bi te doo ko li doo nekkati leader bi donc li may wax mooy taalibe yi nga xam te ne ñi ngi révélé di wax di coow nekk ci bitim réew ak fu nekk di coow ak a wax ngir sa article bi donte yow tuddoo tur sax waaye ni nga waxee ku ko dégg xam ni diw ngay waxal te diw mooma sax muy suñu Bass Abdou Khadre euh, taxul révélation bi ma koy def sax ci misaal waaye li ma bëgg a wax mooy moom dafa am symbole bu muy présenté ci yoonu Mouride muy xalifa général de Mouride jox ko kàddoom yeesal ko ñi fi nekkoon ñëpp yeesal ko mu yor kàddu gi comme moo gi nag nga ni léegi comme ab la ci yoonu Mouride xaaral ma attaqué ko comme ni nga xamante ni sa benn naataango eh, El Modou Gueye noonu la defoon ngir attaqué suñ Maam Mor di wax ci moom ay wax yu ñaaw kon da ngeen a kon kilifa diine yi kon ngeen ciblé bu bu kii jëlee suñu Maam Mor tey kii jël suñu bas tey kii jël ngeen séddoo leen léegi nag bàyyi leen jàmbur yi bàyyi leen jàmbur yi ñuy dund parce que ay ay nit lañ ay julit lañ ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ bokk fu baax sañ a am sañ a mën a mën a mën a mën a am lépp loo xam ne du dagan la yow kenn ci yéen dégguma ko mu wax ni amin wi daa araam li ma leen dégg ngeen di wax yëpp mooy lu tax ñu may ko ko lu tax ñu jox ko nangam mais loolu mooy lan nit dëkk ci am réew di fa présenté yor ay daara yor lu nekk di defar ay nit nga taxaw ni waruñu leen def nang chantage bi dafa doy ma jëmba santas bi dafa doy santas nga Ablaye Wade ba mu xëy jógee fi sa immeuble bee nga tabax ci xaalisu Ablaye Wade boo ko santas nga ko tabaxee euh, santaas nga euh, Abdou Diouf ba mu xëyee jóge fi président Macky Sall moom yàlla def na santas du ko du ko du ko du ko yëngal jéem nga ba sonn bëgg bunt ci moom tax nga koy santas guddi ak bëccëg yàlla def na nag mënoo mënoo koo santas nga jël lii tey bëgg koo taqal bëgg taqal tamit xalifa général de mourides bëgg a taqal euh, porte parole bu xalifa général des mourides laa bëgg a wax loolu ngay teg ci suuf loolu ngay bàyyi yàq googu baaxul bu fekkee nag li la tax di wax ñun xam nañ ko ci am ci ay information yu wér fu ñu justice woo ñu dem ci mooy euh, ak franc-maçonnerie yi euh, dafa nekk loo xam te nii principe principal am mooy hadmul muqaddasat ad-diniya lépp lu ñuy màggal ci kaw suuf nga ni dina ko màbbu ba kenn dootu ko laalati te yow ñu la cay tuumaal yow sa bopp nga wax ma ne dañ la koy tuumaal waaye tey dinaa indi benn preuve dinaa wan mbokk yi benn photo boo xam te nii sa photo la muy bii nii photo bi ku ne gis na ko nga xam ci pyramide bi nga taxaw nii ci ginnaaw pyramide bi ci ci nga photo wu nii pyramide moom ku ne xam ne triangle la nii triangle di signe franc-maçon buñ xam nga taxaw ci nii photo wu ci te des na yeneen yoo xam boo noppiwut danañ ci wax ñun nag amul lu ñu ragal ndax li am mooy lenn la rek dee shahid dund am tuyaabay suñu borom te kuy liggéeyal suñu Tuubaa amul dara la war a tiit walillahi al izzatu wali rasulihi walil muminin yaa ngi nii taxaw mi ngi nii leer naññ yaa ngi nii ngi nii pyramide baa nii sa ginnaaw nga fotowu ci mu leer ci ginnaaw bleu ciel bleu sky bi ci nga taxaw bleu sky ku jàng dëgg-dëgg principe franc-maçon di nga xam bleu sky mooy lan di nga xam triangle bi di nga xam mooy lan dinga xam cat bi ci kaw di nga xam lan lay signifier di nga xam tamit god bi lan lay doon kon dañoo bëgg nga arrêté kon bu fekkee franc-maçon yi ñoo tax di wax yoonu murit da ngeen waxoon ni lépp lu taxaw bu amee téeméeri at dina daanu yoonu murit am na téeméeri at te wut yéen nag kon arrêté leen li ngeen def te bàyyi eh, seen yàq yi naaj yi moom ginnaaw moo réussiru ci la mu bëggoon xam leen ni lislaam moom day continuer ba faw njàngaleem Sëriñ Tuubaa tamit day continuer ba faawu kon eh, dañoo fas yéene nag am na cellule communication boo xam te ni yoonu murid mi ngi koy taxawal te lañ te fas nag mooy léegi nag mayetuñ kenn moo xam journaliste la moo xam activiste la moo xam ku mu mën a doon mayetuñ kenn nag léegi muy attaqué yoonu murid mbaa muy attaqué ab symbole ci symbole yi lislaam yi wala ab symbole ci yoonu murid bi da ngay yor sa téeméeri sikk dem ci sikk lenn luy xaw a nuru sikk rek te du sikk nga taxaw ba caa profité mais yow suuf si ngay wax yow euh, demal euh, yoy xë géro yi leen may suuf ñaata la demal xë tarixa boo fi dem bu tarixa murit xalif généraux yi fi nekkoon ba tey seeni njaboot ñi ngi doon ay suuf yu baree baree baree Dakar doo wax ci loolu tax waxoo ci tax nga ciblé yoonu murit lan moo tax nga ciblé xalif général lan moo tax nga ciblé porte-parole parce que da xam ni sëñ Touba moom présenté diine ci diine diine l'islam ci Sénégal nga ne kon léegi comme diine l'islam la xeex kon nañ attaqué suñ Touba directement lan moo lan moo la nekkal ci maanaam euh, def xalif généraux yi ñuy say ñuy say ñuy say ñuy say ñuy say pion yoo xam te ni ñoom nga fas yéene di attaqué directement ak indirectement tamit encore dañoo bëgg nga bàyyi wax ji bàyyi coow li euh, li may wax nag taalibe murid yi ak taalibe sëñ Touba yi mooy ñu xam ni xeeti ma jëmbal yi nga xam te ne yàqaleen tax a jóg suñ leen moytuwut ba tax maam kenn ku nekk di bind ko wax ak di révéler ak di coow te ku nekk ci la ngay wax dossier ba xamu ci tus ñu téye seen ñu ñu téye seen bopp ci ma ku mel ne ma jëmbal mii ndax suñu Abdul Ahad ba mu ko defee ca Mbàkke benn waay bu fa nekkee yoru boutique am di jaay sàngara di jaay yeneen su Abdul Ahad tere ko ba sonn daa wax taalibe yi ni bu leen jëndati ci moom dara bu kenn jëndati ci moom tàngal ak suukar rek dara ba mu ko defee la perte ma jàmbal kon bu ko ñëpp boycotté woon bàyyi le quotidien bàyyi journal am bàyyi ay organe de presse am murid yëpp bàyyi ko murid yi ñoo fi ne kenn néew fi taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñoo ëpp doole Sénégal bu dee économie ñoo ci ëpp doole bu dee mbooloo ñoo ci ëpp bu ko ñëpp boycotté woon léegi tey mu daanu bàyyi li muy def waaye saa yu ñu xëyee jënd ay journal am saa yu ñu xëyee di lire ay article am parce que loolu tamit suñu vraiment nekkul loo xam te nit ñi nag ñetti mbir moo tax ñu ragal a attaqué ma jàmbal benn bi mooy ñu bari neeñ franc-maçon la benn ñaareel bi mooy benn waaye waxoon na ma ko koo xam te ni ku siiw ci journaliste yi la ni ma dee leen mooy tuddi xuloo journaliste parce que 365 jours yëpp su ko neexee bu set bu xëyee attaqué la waaye booba nag nañ xam ni booba dañoo yoroon seen organe de presse kenn amu ko waaye léegi sa page Facebook képp boo taxawoon def direct léegi lu ëpp un million de personnes topp la di la déglu ay di la xool moo tax kon léegi ku la ko ku la ko ku la ko ku la su ko defee beneen mbir bi tax ñu bari duñu wax ci moom mooy lañ ne ah Madiambal daal suñu nañ ko bàyyi rek koo xam ne ni yow xombal gi nga nekkoon di wëreelu euh, sa yaay nangam nangam sa baay nangam nangam di kon nañ la bàyyi noonu kon du suñu nawle ah kay nag du naa bàyyi ne comme nawle nag parce que yu baree bari comme ni nga ko xamee ci cosaan la yëpp waaye nag nañ bàyyi xel ni yi muy wax nag buñ toogee di ko bañ a tontu rek nag day mujj nag ëpp nag far kon la nga fi waxoon ci suñ saali yu fàttewuñ ko la nga fi waxoon ci suñ baara fàttewuñ ko li nga fay continuer di ko wax toujours lañ fi Moussa wax Abdoulaye Wade lépp su Abdoulaye Wade di sànni xeer ak di wax su Macky eh, bëggee defar université Touba mbaa mu ni maay fay professeur wala nangam nga commencé sa xol bi jeex tàkk ngay bindi article di wax lan moo tax nangam Macky moo tax muy ubbee campagne am Touba di wax ak coow yooyu yëpp da nga koy teg ci suuf te bàyyi santage bi ak wax ji bari ji yàq baaxul te suñ Touba mi mënuloo ko dara njabaru suñ Touba gi mënuloo ko dara waaye mu taxaw di attaquer verbalement wala physiquement maam njaboot Sëñ Tuubaa gi ak héritage Sëñ Tuubaa bi ak njàngaleem bi nga xam ne moom la fi bàyyi. ak kum ci mën doon nag kuñ ci amal contentieux sax xool naan am nañ contentieux wala dara moom dafa laal lañ bokk ñun ñëpp ñu taxaw ca wax. kon téyel sa wax ji téyel sa làmmiñ yi boo mënee jégalu nga jégalu boo ko nga bàyyi ñu ak suñu mbir keroog ba nga mujjee attaqué di wax commencé naan Touba laajte de xuma lan la ko waxee sax xoolal boobu boobu article du ko gën a ñaaw bi corona bi commencé ba saa yoo xëyee di bind ci Touba lu ñaaw di wax nga xam ñu bari yaa ngi di influence journaux yu bari yaa ngi di influence di wax ak di coow keroog ba nga ko defee dama laa message vocal la ni la ma ma jëmbal neexoo setal ndax yow foo toll yaa ngi coow yaa ngi wax bàyyi sa yi nga nekkee bàyyi yoonu murid yi nga taxaw fas yéene taxaw leen defi yoonu murid kenn mënu koo defi am na sa maam yi fi nekkoon di ko jéem a xeex ba dañoo ana maam Abdoulaye ana ñeneen ak ñeneen fuñ mujj toroxtaange alku rek ah nañ bàyyi caaxaan yi sëñ Tuuba ba muy liggéey dafa bari ñu mu fi nekkaloon ñoo xam te ñu ngi fi woon te kenn xamu tey mu réussir mission bii nañ ko sàmmal teyal ko te fas yéene nag kenn ku nekk doonam sordaal boo xam te ni saa yu ma jëmbal taxawee a yàq ñëpp taxaw defi ko waxuma kenn dem di yàq wala di lakk dara wala dara loolu moom lu waa ko war a lijjanti waaye buñ ko boycotté ñun ñëpp ci côté yëpp ko fi ñu ko gis àndandoo yuuxoo ko ko wax ko ba mu ba ba ba dootu xamante fu muy jaar ba mu jaaxle tiit dana mujj bàyyi lii muy def ñaata yoon nga tuub si suñ Tuubaa neen Sëñ Abdou Lahad nee na woon ñetti maa ngi jégalu yu nekk genn maa tay la ñetti maa ngi jégalu yu nekk genn maa tay la kon foo toll na maa ngi jégalu te boo jógee di waxat di waxat li bon du jëme ci yoonu murit da ko war a bàyyi da ko war a teg ci suuf waaw li am nag mooy walillahi l izzatu wali rasulihi walil muminin naa yi nag ñoom duñu xam mukk yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla na yàlla dimbali gindiwaat la nga dellusiwaat ci ak mbaax dellusiwaat ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa